Euh, mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi am ak kontaante ci àndaat ak ci suñu dars jawahiral maani tey nag ñu war a ànd ak yéen ci suñu dars juróom ñeenti fukkeel ak juróom مولانا شيخ جيام رضي الله عنه وقد علمت أن الفرح بالنعم على ثلاثة أقسام نيو جاوز يا الله بي خم غني بك كيسي ولد يا فرح بها لكونها قضاء للوتر والشهوات بك بك كي خيو ndax xéewal googu yàlla daf ko wàcce ci yow ngir nga faj ci sa ak say bànneex wa saaxibu hada al farax boroom boobu leen mbégte mislal bahimati sawa moom ak bàyyi ma yi ndax bàyyi ma yi faj seen ci lekk ak ak sëy loolu dong ci lañu bég kon doomu aadama bu taxaw ci maqaama boobu tamit daanaka yow ak bàyyi ma yeneen wa farahun biha li kawniha fiha qadaa'ul watari wash-shahawaat wa li kawniha minnatun minhu li ixtiyaarihi laha jalla wa ak mbégte moo xam ne la sabab mbégte ba mooy fajum xaajo ak bànneex waaye nag gëm ni xéewal googu may la bu tukkee ci yàlla ngir tànn gim la ko tànnal moom jalla wa فهذا متوسط بين الدناءة والشرف لكتبوا بودك نكتي ديجنت دناءة موي لسوفة والشرف أكتدنغ مانام دفا نكتي ديجنت نيت اكباي باي ماي وفرح بها من أجله جل وعلا أك نكتبوا خمني bihaa da koy def ci xéewal googu yàlla xéewal la min ak ngir yàlla jalla waala yàlla mi nga xam ne màgg na te kawe na waa naa min nga gëm ni xéewal googu tànneefam bum la tànnal la li kaw nihaa fihaa xadaawul watari ndax nekk gi nga xam ne fajum xaajo nekk na ko ci wa shahawaat ak bànneex différence bi mooy yow xam nga yàlla maanaam lii mbégte la boo xam ne dama koy bëgg rek te yàlla tax fa hada huwa gaayatu sharafi loolu mooy daytalu tedd nga war rifaati ak yëkkatiku li saahibi ñeel boroom boroom mbégte moomu wala li saahibi ñeel boroomam hada al farax boobu la wa kadalika ni ki noonu fi diddi niami ci contraire xéewal yi fil karahati laha hakada sawa maanaam bu la yàlla nattoo gi nga xam ne yaa ngi koy sib nattub yàlla gi ñii la amee ñetti xaaj maanaam maanaam karaha fan awwalu mazmumun qatan bi ci mooy nga ŋàññi ko définitivement wa ñaareel bi mazmumun wa mamduux am na ci looy am na ci looy tagg wa bi mamduuxun mushrifun qataan mooy loo xam ne da koy tagg di ko teral faaw li lam yafrax bil jannati lazatiha ndax ku mat ki dëgg déggut ngir xéewale bi ko yàlla xéewale àjjana ngir neexaayam ga wa shahawaatiha ak bànneex ya bal li annaha min min xusni ixtiyaarillahi jalla wa waaye day bég ci àjjana ndax dafa bokk ci tànneef yu rafet yi ko yàlla tànnal wa annaha min aadami minanihi te bokk na ci mayam yi gën a mag wa annaha daaru jiwaarihi wa mahabbatihi àjjana mu day bég ndax àjjana mooy dëkkuwaayu euh, dëkkandoowam ba ak aji soppeem mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa hum yuhibbuunaha ñoom dañuy bëgg àjjana wa yafrahuuna biha min ajlihi ñuy bëgg ci àjjana ngir lam doon xéewal ak yàlla bi gën a mag waaye dëkkaale biñ fay dëkkaale ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lima taqaddama min azli sahawaat ndax liñ jiital ci beddi bànneexu bakkan yi wa xuzuzihim ak seeni cër li muraadillah jublu rek namm nammab yàlla bi waxtiyaar yi ak tànneefam أنالنا الله ذلك من فضله وكرمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا الله دفل لولو في جنيل أكتر دنغم في درجة ينتبه صلى الله عليه وسلم اه، مولانا الشيخ رضي الله عنه بوحش لولنا اه، من والحاصل li am ba am mooy annahu laa yakillu alqiyaamu lillahi bihi ma allahi min ajlillah annahu naka moom laa yakillu du toqi mukk alqiyaamu lillah taxaw rek ngir yàlla billaahi ci yàlla ma allahi ndag yàlla min ajlillahi ngir yàlla jalla waala képp koo xam ne léppam daf koy def ngir yàlla kooku du toqi xatta yatawarraa saahibahu maa jamil maqduraat bam ba nga xam ne boroom kooku di def ngir yàlla day dem ba fegu ci mbooleem yi nga xam ne mooy tilim tilim yi wa yaqtau tama min allah mu dagg ak bëgge ci yàlla an yutiahu gayra ma qadara la mu top yàlla rek euh, du ko toppee liñ dogal ci moom aw yamnaahu maanaam lu mu ko wërsëgale wala mu xañ ko ko wala yasilu ila allahi xatta laa lahu garat te jaam bi du yegg ci yàlla mukk fekk demul bay bëgg-bëggam jeex laa yabqa lahu ba dara defewu ko garadun bëgg-bëgg fii shay'in min al akwaani ci dara rek ci nekkatee fi kama qiil comme niñ ko waxee ne xaraamun alayka al ittisaalu bil mahbubi wa yabqa laka fi l aalamina masrub dina xaraam ci yow jaam yàlla bi nga jokkoo ki nga sopp feek yaa ngi defe ab àndandoo ci mbindeef yàlla ku bëgg a ci moom da def tajarul ci lépp da ngay submeeku ci lépp ba set wecc wa huwa nuktatul baab euh, lii mooy nuktaat buntu bi maanaam buntu bi li muy wax yépp lii mooy résultat bi maanaam ndaggal jokkoo ku dul ngir nga jokkoo yàlla waqad qiila fi hada wax nañ ci bu mel ni ma talaat shamsun wala garabat ala alxalqi illa wa hum juhaalun billah amul jant buy fenk wala muy soot ci mbindeef yi lu dul ni wahum ñoom juhaalun billahi ñu ngi réere yàlla illa man yuassiru llah azza wa jalla ala nafsihi wa hawaahu wa axiratahu wa dunya lu dul ki nga xam ne yàlla def na jeexital ci bakkanam bànneewu bakkanam ci addunaam ak alaaxiram fanzur fi haada nga xool ci lii nag hal tajidu lahu ci kii hal tajidu lahu garadan fil akwaan ku den ba yegg fi nga xam ne bakkan du jeexital ci moom bànneexu bakkan du jeexital ci moom addunam ak alaxiraam la yemale maanaam jaamuwul yàlla ngir alaxira jaamuwul yàlla itamit ngir ragal sonn fii ci àdduna kooku mu ne xoolal ndax kooku di ko gis mu defe benn feneen eh, tees ci وهذه هي الحرية الخالصة لي موي ليبرتي بيغا خامن موي ليبرتي توتال من الشو من شوائب رقية الأكوان كي لم ييغا خامن كونو بي مانام نيكتي في دنج كاي داف ومن تحقق بهذا المقام كيب كو خامن امنا اك دغو سي ديلا يكون الدعاء في حقه بمنت العبودية فقط نيان وي نيان سي حقام داي دون رك يير جامو لا تط- ت- tatalluan ila tahsili shay jaamuwul yàlla ngir jot ci dara li annahu in tatallaa bi duaihi ila tahsili ma qadara la ndax moom bu fekkee dafay jaamu yàlla ngir jot ci li nga xam ne moom lañ ko dogalal aw aw daf ma huwa madfuun an wala ngir ñu jañal ko loo xam ne dañ ko jañ mu jëm ci moom fa huwa abasun lool caaxaan la joo xam ne laa faidata lahu amul benn njëriñ wa yalbimuhu ta'dibu qalbihi bu boobaa nag li koy war mooy mu yar xolam an hada tatallu'i lil abas ci feeñwaay boobu nga xam ne feeñ na ko rek ngir fo wa in tatallaa li dalika fa huwa tamoon su fekkente ne nag moom dafa gis ni loolu noonu la war a demee maanaam dafay jaamu yàlla ngir nangam ak nangam fa huwa tamoon loolu bëggee la ومضادة لأحكام الربوبية لول دفا كونتر أتب بي الربوبية وكلاهما في مذهب العارفين حرام نياريو يب موي فو منام جامو يالا غو قد مدن كي جامو يريا كاردارا ولا صح nga taxaw ci lu contre faqru bobiyatu neena lool yep dafa haram ci madhabul arifin kon nag fa yalzamuhu ta'dibu qalbi li koy war mooy mu yar xolam ba tey an haadihi alxasaayisi ci yële tilim tilim falam yabqa illa taalluqa billah dara waru koo defee lu duut mu aj xolam bi ci yàlla azza wa jal ubudiyatan la ngir jaamu ko la li ajli tahsili shay'in minhu bi taalluq du aj xolam bi ci yàlla ngir jot dara ci yàlla déedéet daf koy def rek ngir yàlla moo yeeyoo li an laa yudxilawu ma taqaddama min at-tam'i ngir bañ a dugal ci xolam liñ jiital ci ab mbëggee bëggee wal abase ak fo wa shirkil agradi ak bokkaale ci ay bëgg-bëgg wa yalzimuhu lwuqufu ma allah li yell ci moom mu taxaw ci téeb yàlla bi maa hududil adabi bir rida anillah ci ànd ak teggin gu mat sëkk ci gërëmlu ليالا واتشي موم في كل شيء كليف لف والرضا بأحكامي جرم إتامد أتى يالا في كل شيء كليف لف والتفويض له نكنونو مو جويل أي ديرم يب يالا في كل حال تي بيب والتسليم له في كل شيء مجبل يالا لفهم والاستسلام له على كل حال مجبل يالا تي حالم وإقامة النفس له على ما يريد mu fexe ba jël bakkanam bi jaay ko yàlla ba bakkanam boobu di doxe ni ko yàlla namme wa tafsiru rida firi ab ngërmande nag anillaahi wala bu ci yàlla azza wa jal wa tarku suxti anhu fi ma yajrihi anil abdara mooy nga bañ di kontu yàlla dogal ci yow ci ay lor bal yatalaqaa hukmuhu bil farax lépp yàlla dogal ci yow rek nga bég kontaan ci wa in kaana xalaaku fii donte que loolu mu la bu lay alak li sidqi mahabbatihi ndax dëggug sa mbëggeelam wala yatamanna zawalu cheyin mimma faalahu bihi min dara te du mébét dara ci li ko yàlla teg ci lor mu teggeeku xatta yakuna huwa alladi yadfaahu lu dul ni rek day toog ba yàlla teggil ko ko loolu mooy nangu dogalub yàlla ci jaam bi wa tafsiru rida bi ahkaamihi wa maqaabirihi firit nag gërëm ci atte yàlla yi ak i dogalam wa tarku suxti li ma xakama bihi alayka aw xeyruk mooy nga bàyyi di kontur li yàlla atte ci yow wala lu mu atte ci keneen ku la jege fa tastawi indaka al madar wal manafiu nga yemale li lay lor ak li lay jëriñ loolu nag moom ngeen dégg baay bi di baay wax ne maa ngi wax bayt yoo xam ne ñi ma jiitu woon wax wax nañ ko ci li ma jiitu te mooy bu fekkente ne ndogal yépp ci yàlla lay jógee bi ci neex ak bi ci naqari yépp moo yem ida kaanatil aqdaaru min malikin mulki fa siyaana indi ma yasiru wa ma yubki moo tax nag moo Cheikh Tidiane ne nga yemale lor yeeg jëriñ yi walan tasila ila taxqiqi hada al maqaami illa bi kamaali zuhdika fii te doo yegg mukk ci dëggal maqaama bi ci sa bopp lu dul nga mat ci dëddu tudduwut yàlla wa kamaali raxabatika fii ak matal sa xemmenteef ci yàlla li ajlihi ngir yàlla dong la shay'a yaudu alayka minhu amul lenn loo ci xaar luy dellu si yow fa yaxibu anka ru'yata darari wal nafa bu ko defee nag day fàddu ci say gët gis lor wala njëriñ wa yasqutu anka tamyiza baynahuma nga dem sax ba dootoo mën a ràññeetle lu lu lor ak njëriñ min zaatihima ak seen jëm xubban wa buxdan ku la bëgg ku la bañ nga yemale képp illa an yakuna al xubb wal buxdu min ajlihi subhanahu wa taala lu dul ni rek li ngay bëgg nga bëgg ko ngir yàlla wala li ngay bañ nga bañ ko ngir yàlla kon fal takun fi dalika lillah na nga nekk ci loolu lillahi ngir yàlla wa billahi fi yàlla ma la ànd ak yàlla wa tafsiru tafwid firi nag lan mooy tafwid joyal say mbir ci yàlla wa tarku tadbiri fi jalbi nafin aw dar aw dafi darar mooy nga bàyyi di def ay pexe ci bijjil sa bopp njëriñ wala ngay jañal sa bopp lor walaw bi taman yi donte ko sax lu ngay mébét la fadlan ani saay ilay rawatina ngay dox ci lu jëm ci lool euh, lima ulima min sabqi tadbirihi ndax li ngay xam ci euh, nga xam ne yàlla dogal na ko ci lu njëkk li kon nak fala hi ala ma qadara xusuluhu nafan aw daran mën ta muccu ci li yalla dogal mo xam luy jëriñ la wala luy loole la wala sabila ila lima udira nafihu nafan aw daran amut ben yoon bo xamne ne mën nga ci jaar ngir dak ab njëriñ bu la yàlla bu manam ngir fexe ba njëriñ ñew wala ngay làq ab lor bu la yalla dogalal ci yow kon falam yabqa illa tarkat tadbir dara desut ci yow lu dul nga bàyyi def ay pexe wa huwa tafwid te loolu mooy jooyal sa mbir yëpp ci yàlla wa tafsiru taslimi lillah firi nag jébbal sa lépp yàlla wa tarku munazaati almaqadiri tamanniyan aw saayan jëlban aw dafaan wuquan aw nafian mooy nga di konturanteeg dogalu yàlla yi ci mébét wala di dox ci lu koy kontur wala ngay ut lu lay dijjil njëriñ wala lu la koy jañal wuquwa an ci lu tabbi ci li ngay tabbal ci sa jëmm aw nafiyan wala looy dàq ci sa jëmm lima ma sabaqa aidan min taqdiri ndax li nga xam ne jiitu na ci dogalal yàlla azza wa jal waxtiyaaruhu fi saabiqi azal yi ak tànn tànn loolu ci yow ci azaliyatam euh, lima qadara wuquuhu aw adamuhu ci li nga xam ne dogal na ko mu war a tàbbi ci yow wala mu dogal ko mm, mu war la koo xaj wal munaazaatu kulluha xaram min dal aarifi xëccoog yàlla moom dafa xaram ci aarifina yi li annaha imma abasun moo xam pola aw tamin wala bëggi kama taqaddama comme ni nga ko jiitalee kon falam yabqa illa taslim dara desewut jaam bi lu duut mu jébbal léppam yàlla wa huwa tarkul munaazaati ubudiyatan mooy bàyyi munaazaatu xëccoo ubudiyatan ngir ak jaamu laa tatalluan waaye du ko def ngir ak seenu ila shay'in ci mbir jalban moo xam lu muy biggi la aw dafan wala lu muy jay fa yadxulu shirkul arad bu loolu amee bu fekkee dangay jaamu yàlla ngir biggi dara wala ngir jañ dara bu boobaa nag bokkaale ci ay dara ci ay bëgg-bëgg day am wa tami ak bëgge wala abasi ak fo kon te loolu dafay xaraam indal aarifi wa tafsiru listislaami la firi nag nangul yàlla lépp wa isqaatul xawli wal quwa rootal ab pexe wala kattan min ka ci sa jëmm ji xataa takuna kal mayiti bayna yaday xaasili nga nekk ci nga mel ci kanamu yàlla comme néewuñ tëral ci kanamu ki koy sàng yuqallibuka kayfa ma shaa mu di la windeel nu ko soobe wëlbati num la soob num ko soobee duna ixtiyaarin ci lu du tànneef wala iradatin wala bëgg-bëgg wala xawla déet ak pexe wala quwwata see kattan euh, doo ci am dara li ndax yow ci dëgg amoo benn pexe booy fexe wala kattan boo am innama dalika min dawaa'i nafsi kaadiba pexe ak kattan dafa bokk ci li nga xam ne bakkan guy fen moo la ci dugal wa min bokk na ci ay mbiram mooy al inqiyaadu lil wahmi daf lay gide yóbbu la ci ay gam-gam la ngay imaginer lu amut teg sa bopp foo nekkut falan yabqa illa tark daawa kon dara desul lu nga bàyyi ab woote jëmale sa bopp wa tadibi nafsi ak nga taxaw yar sa bakkan min al ci wommatu ci lu dul yàlla wala wax mi wala ci gam-gam la wa ruddaha ila maxdil ubudiyati al nga fexe ba delloo ko ci jaamu yàlla gu sell gi azza wa jal walam illa al i'timaadu ala allah te loolu nag dara du ko maye lu dul rek dellu sukkandiku ci yàlla wa tafsirul i'timaadu alayhi firi nag sukkandiku ci yàlla azza jalla wa ala huwa hudu huwa huduwul qalbi sukunan ñëwee turaab nga fexe ba e, guider sa xol ngir mu dal ci lépp yëngu-yëngu di fayu ci dëkkërloo gi nga xam ne yàlla mu ngi ko dëkkërloo jaamam taxaw ci bépp mbiru jaam wa saabiqu tadbirihi ak ay ay ay dogalam waxtu yaar ak ci tànneefam wa tabarriyan min atami nga summeeku ba set wecc ci kamaalan ci mat sëkk wal abas ak fo kama taqaddam comme niñ ko jiitale wa kullu haadihi maqaamatun mutajaabiba baaduha bi baad maqaama yi ñuy tudd yépp benn bu ci nekk dafay xëccanteeg moroomam ولن يقدر على الله استفائها كمالا ولن يقدر على استفائها كمالا الا العارفون تكن منكو مثل نكد العارف فكل ما سكنت الى شيء دون الله فكل ما سكنت سايو كمين الى شيء تلن دون الله لدود الله عز وجل كائنا ما كان كوم انت دون لبلو ما نمسو دلل لبلو كي الله فقد اعتمدت على الله جاو سكن يكون بجي الله kon lolu lu ama am solo la pour ñu leral ko bu baax a baax a baax a baax a baax a baax mawlana cheikh anhu ne wa maana sukuunu dal nak dal li muy firi wa hudul qalbi moy dalub qalbi wal istifai bi wujudi ma sakana ilayhi ak jeexital ci li nga xam ne moo dalal xel bi wal istiraab ak yëngu-yëngu yi wal waxshat ak wéet wal xasne ak njàqare inda faqdil maskuni ilayhi saa yoo xamee ni ñàkk na li nga xam ne moom moo ko war a maanaam fa la war a dale wa man kaana ala hada al xaali maa gayrillah képp koo xam ne nekk nga ci xaal bii ci lu dul yàlla wa kullu wukkila ila ma sakana ilay wukkila maanaam wakiil nañ ko ilaa ma sakana ci li nga xam ne day dal ilay jellu ci moom wa halaakuhu muhaqiqun la mahaal képp koo xam ne yow sa xol bi daleewut ci yàlla mu ngi yëngu mu ngi wéet ndax yàlla di jàq rek te delloo ci yàlla kooku moom alkande mënta ñàkk wala matma lahu fi darkil falaahi alkaamil kooku amul benn pexe bu muy jaar pour yegg ci pexe ku mat wa man kaana sukunuhu ila allah képp koo xam ne dalam gi dafa aju ci yàlla wa unsuhu bi wéttalam nekk maanaam wéetam yépp ci yàlla lay wéet duuna shay'in siwa walees lu duul yàlla wakkalahu llahu azza wa uluhiyati wa ixtiyaar daf koy wakiil ci muy gëstu uluhiyatu yàlla gi waaye nag nangul yàlla ay tànneefam wa tawallahu bil inayati al gi ومنحه ما لا نهاية له من الأحوال ممايكو نكلو خمنا دو جيح جاي حال يكوي والمقامات السنية أك أي مقام يسل والإخلاق الزكية أك أي جيكو يسل ولا تسأل عما يجده هنا من الفرح واللذات بل نك لامي أمي لولو تي أي خيرتم بكت أك بانيخ وشرفي أك تردنغور رفقتي أك نوي wala yaalamu gaayatahu illa alladi tafaddala bi dayob loolu kenn du ko xam lu duwut ki ko yàlla may walam yaxut bi hadihi almaqamat illa alaarifuun linxilaa'ihim ila allah azza wa jalla min akwaan maqaam bii nag kenn du ko peeg lu dul aarif yi nga xam ne ñoom dañoo summeeku ci seeni ci seeni koddaay ngir yàlla wa tathirihim min annazari ilayha ak laabal xool leen seen gët ci xool leneen lu dul yàlla lahzatan aqalla wa aktar ci yendeeku bu gën a gàtt wala bu gën a gudd farajahu ila allahi ñu dellu ci yàlla azza wa jalla bi asrarin muxtatafa amma siwaaw ci mbóot moo xam ne dañuy salbu ci moo ñoom lu duwut yàlla maghmuratun bi shuhudihi ghaibatan an wujudi siwallah ñu labal leen ci seedu yàlla fadul ci ñoom gis lu dul yàlla muqayyadatan indahu fi hadratihi yàlla tënk leen fa moom ci payam ba jalisatan ala bisaati tafridi bi arwahin mutahara ñu toogal yàlla toog loo leen ci laytaaya kennalam ci ñu toog ak seen ruxu yu sedd yu yu laab ya nga xam ne luñ laabal lañ min alaiqil ajsami zulmaniya ci ñu yokkoog laabal nañ jëmm ji ñu ba jëm ruux yi ñu bañ a jokkoog jëmm yi nga xam ne jëmm yu tilim yi la mutaaliyatan ala ma yasbutuha an tiraani fi riyaadi aljabarut mutaaliyatan ñu aji yëkkatiku amma yasbutuha an tiraan ci li nga xam ne dinañ ko saxal ci ñoom ci an tiraan ci yëkkatiku min riyaadi aljabarut ci déngrek jabarut منزهة عما يقده في حبها وكمال شوقها إليه ميستالكو تي لغا خمنا موم لي تينو من حبها تي وكمال شوقها أك ماتوك مبجيل ملي جل جل كرنا مغن وعلا تكرنا دائما بفا وبيعقول متهرة أشقى يسل من ينسقل ينلابل من دنس الهواء في تلم تلم بانيخ بكان دائما تسيري xel yoo xam ne dafay sax ci dox wal fikri ak xalaat wal nadari ak di xool fi masnuaatihi ci créature yàlla yi jalla wala multaqitatan ñuy aji witt asraara xikmatihi mbootan xikmatu yàlla fi xalqihi ci ay mbindeefam bi qulubin ci xol goo xam ne xat kamula taalluqaha bi mat na ci aju bi nga xam ne aju na ko ci yàlla بقطع علاقات في بعض مولم رلاسيوني والتطهير من الإرادات أكلا والبقم في أي بق بق والانخلاع من المألوفات سبني كتين من في دوم آدم وغد البصر عن جميع الموجودات سج أي بتم ولس مولم كتافي ووقوفها على حدود الأدب تخونا كي دايتلو أدب سجن بين يدي خالق الأرض والسماوات كي كنا ممكن قمنا بالله سبحانه وتعالى bi nufuusin zakiya ci bakkan yu laab mutmainna yu dal an jamili tarabaat ci mboolem yëngu yi tahiratun mutahara yu laab tay laabal munxaliatun anil hawa yu nga xam ne dañoo summeeku ci bànneex ci ci bak bak bànneexu bakkan wa shawaatiha ak i bànneexam wa bi ajsadin mustaghriqatin al al baad wal kullu laa tataxallaf minha shaaratun wala zarratun an xidmati xaaliqil mawjudat ak ci jëmm yoo xam ne dañoo labal yenn yi ca ya ca des maanaam lenn yenn wàllu jëmm ji labal nañ ko ci la ca des ci xol bi bu ko defee nag duñu wuute lenn ci lu tolloog pepp karaw wala zarra ci xidmaal ci bind nekkiteef yi muy borom bi subhanahu wa taala waalam xamal ni anna xujubal xalqi kiiraayeg bindee fi anillahi ci yàlla huwa sukunuhum ila gayrihi mooy sax giñ sax ci lu dul rek moo leen xiir wala walawla dalika bu dunutoon loolu raawhu kulluhum bi basaarihim ayaanam ñoom ñëpp dañuy gis yàlla ci seeni gët kon xanaa Cheikh Tidiane radiyallahu anhu saxal na gis yàlla ci ay bët su fekkee teg yi nga say bët ci lu dul moom la Seydi Alhaaj Malik Si radiyallahu ayaanan fal ilahu qaribu su fekkutoon nit ñi sëgg giñ sëgg ci lu dul konon dinañ janoog yàlla ci seeni bët ndax yàlla dafa jege walakin baaduhum fi lxijaabi ashadd min baad waaye nag ñenn ci mbinde bi seen xijaab dañoo gën a tarante wal kullu fi xijaabin anhu ala haddin sawa ñoom ñëpp nag dañoo xiiru yàlla ñooyem listixaalati almasaafati ndax jombak ak masaafatu gi maanaam distance bi wal ëmkinati ak place bi wal jihaati ak bër ak jubluwaay bi innama dalika bi nisbati ma hujiba al abdu an shuhudihi jaam bi suy wut distance diggante ak yàlla wala muy sàkkal yàlla bërëb wala bërëb wala muy sàkkal yàlla jubluwaay loolu kiiraay gu rëy rek moom moo ko waral wa taifatun am na ci kuréel yi ñoo xam ne xujubuhum xubbu dunya li xajabahum xubbu dunya wal inkibaabi anha li leen xiir yàlla mooy bëgg àdduna ak nuur giñ nuur ci àdduna wa hada azamul xujubi loolu mooy kiiraay gi gën a mag ci kiiraay wa am na ci kuréel ñoo xam ne xajabahum anillaahi li leen xiir yàlla shahawaatihim mooy seen bànneexu bakkan wa agradihim ak seen i bëgg-bëgg wa hawaahum ak seen bànneexu bakkan wa nufuusihim ak seen ban bakkan wa hada adna min al awal boobu moo gën a suufe bu njëkk ba wa taifatun am na ci kuréel goo xam ne hajabathum al axiratu wa anwaai naimiha al axira ak xéewal yi ci yàlla di digge muy àjjana yeeg xawru na yeen njënd yaa ci biir àjjana mbugal yu tar yaag ragal paxu safara yi ñoo leen xiir yàlla wa taifatun mooy ñi nga xam ne dañuy jaamu yàlla ngir àjjana wala ñuy jaamu yàlla ngir ragal safara lool moo leen xiir yàlla wa taifatun am na ci kuréel goo xam ne leen xiir yàlla mooy sukunuhum ilal ulumi sax giñ maanaam sëgg giñ sëgg ci xeetu xam-xam yi wal maarifi ak maarifatu billahi wal asraari ak mbóot yi wal anwaar yi ak leer yi wal axwaali ak xaali wal maqaamaati ak maqaama yi ay kiiraay la bi maqsuduhum min allahi ndax loolu rek mooy seen namm-namm ci yàlla wa matlabu wa talabuhum minhu ak loolu lañ doon sàkku ci yàlla bu fekkee loolu rek mooy sàkku teef ci yàlla yooyu yooyu ñooy say kiiraay fahum yaskunuuna li wujudi ha dañuy dal ci am yooyu wa yatrab wa yattaribuuna li faqdiha bu ñàkkee ulum yeeg asraar rek aswaaq yi rek perturbé wu kon ñooñu yàlla taxu leen jub waaye nag wala aarifuuna aarif yi nag xariquuha xaraqu haadihi lxujuba kullaha ñoom dañoo dagg kiiraay yépp wa jalasu ma allahi ala bisaat shuhudi ñu toog ànd ak yàlla ci laltaay ak seedu ko wa tabari min ruyatil ahwal dañ ba set wecc ci gis seeni xaal wala seeni maqaama wala seeni bëgg-bëgg te annaha min jumlatil akwal ndax xaal maqaama asraar yeeg iradaat yeeg yooyu yëpp dañoo bokk ci nekk teef allati yi nga xam ne xaraju anha ñoom aarif yi génn nañ ci bam set wecc وإنما كان الأولون أعظم ممن بعدهم في الحجب نيفي جيتو نك سين كيكيرا نيو غنا لأنهم رهنيوم حجبوا بالحجاب الأول بعد الثاني لأن لن هي كيكيرا لنكلي جناو نيارل وأهل الحجاب الثاني نيارل مانام نيوم أدنو مولين يير نيارل وأهل الحجاب الثاني نيقام نيوم بروم نيارل كيراي نيوم خرقوا الأول bi zuhri dañoo dañoo xotti kiiraayu lu njëkk la ci dëddu àdduna fa qataa alayhim tariq fa qutia alayhim tariq ñu fa qutia daggeef alayhim ci ñoom ak tariqu yoon wi li dagg yoon mooy dawaayi nafsi wal hawa bànneexu bakkan yeeg bakkan bi fa xujibu ñu xiir leen nag maanaam bakkan ñëw xiir leen ñu ñuy jëf ngir seeni bakkan kon gis nga njëkk ña àdduna moo leen yiroon ñii ñëw dëddu àdduna waaye nag bakkan sonal na leen walu ijaabi saahib ñetteelu bi nag ñetteelu borom ñetteelu kiiraay bi ñoom dañoo dagg ñaari kiiraay njëkk yi dagg nañ àdduna dagg nañ bànneexu bakkan waaye nag li leen gàllankoor mooy bànneex bu sax ga ca lazatu naimi daayim ca àjjana loolu xiir leen ñeenteelu ñeenteel ñi nga xam ne ñoo taxaw ci ñeenteel bi muy ñeenteelu kuréel bi ñoom dagg nañ ñetti kiiraay yooyu dagg nañ àdduna dagg nañ bànneexu bakkan xam nañ ni àjjana warta dox seen diggante yàlla waaye nag euh, waqata alayhim iradatu rifaati li li li leen xiir mooy di dagg kiiraay yooyu yëpp ngir bëgg yëkkatiku wala bëgg dayoo wala bëgg yegg ci ay maqaama illa anna salaasa al awwalin waaye nag moom la Cheikh Tidiane nee na ñett yu njëkk ña ñoom li leen xiir yëpp lëndëm la waaye ku mujj gi xaja wal axirin an illahi azza wa bil anwaar ñi nga xam ne xotti nañ kiiraay ak àdduna xotti kiiraay ak bànneexu bakkan xotti kiiraay ak jaamu yàlla ngir ragal safara wala jaamu yàlla ngir bëgg àjjana ñooñ kiiraay li leen mujjee xiir nag nga xam ne mooy mooy kiiraay yi nga xam ne mooy bëgg a yéeg ci yu nel noonu loolu kiiraay ak leer la wa kulluha mutasawiyatun xaytu lam yanzuru ila allah eh, te ñoom ñëpp mustawiyatun ñoo yem xaytu lam yanzuru ndax dara nekkut fi lu ñuy xool ilallah lam yanzuru xooluñu ilallah jëmale ci yàlla wa man xaraqal xujuba kullaha ku xotti mbooleem kiiraay yii nazara ilallah yi nga xool ci yàlla bi aynil basirati ci mm, gët ak gis-gis maanaam nga am aynul basira ngay gisee yàlla wa ama tafsiru iqamati nafsi firi nag iqamatu nafsi eh, maanaam saxal sa bakkan bi lillahi ñeel yàlla ala ma yurid ci li yàlla bëgg wal qiyam bi muradihi ubudiyatan li ajli mooy nga taxaw ci namm-nammab yàlla yi ngir jaamu yàlla ngir yàlla wabtigaa i wajhihi bi isqaati rajaa'i minhu ngay jaamu yàlla ngir jëmmi yàlla ji bañ a yaakaar moom dara alal ibadati faqat la annahu yaqtau rajaahu minhu qanutan min gayrihi e, doo dagg dagg ak yaakaar ci yàlla tegtalewut ni doo yaakaar yàlla déedéet waaye jaamu yàlla bi ngay def ngay bañ a ni mooy tax nga am loolu mooy dagg yaakaar gi waaye yàlla dañ koy yaakaar ngir jaamu ko ci ab yiw fa inna dalika aynul kufri al manhiyu anhu maanaam di jaamu yàlla ngir yaa jaamu jooju nga ci yaakaar dara loolu mooy jëmmi kéefër goo xam ne tere nañ ko innama yusqit maanaam bañ a yaakaar yàlla ci dara moom loolu mooy jëmmi kéefër gi maa ngi jégal fa innama yusqitu raja an al ibada di tataxallasa ibadatahu lillah da ngay yaakaar ci jaamu gi ngay ngir nga sellalal yàlla jaamu gi ngir nga mën a génn yi tamit ci bokkaale ni ñuy tuddee sirkul awraat wa yarjul xayra min rabbi yaakaar yàlla mu tukkee ci yaakaar euh, ci yiw mu tukkee sa borom bi max bil fadli ci cosaan ak ngëneelam wal karam yi ak tedd nga war rajaau yaakaar nag mu ne war rajaau yaakaar wa xusnu zanni billah mooy rafet njortu ci yàlla mooy rafet njortu ci yàlla lima huwa alayhi min mahasin ndax li yàlla làmboog ci ay xeetu taar min mahasini sifaat yi ci ay xeetu taaru melo al azimati daaji màgg wa ama rajaau li nayli cheyin min addunia yaakaar yàlla nag ngir am dara ci àdduna aw min al axirati wala ci al axira foofu wa tamun inna al arifin loolu bëggee lañ koy tuddee ci aarif yi wa kulluhu xaraam loolu lépp dafay xaraam ulima sabtu taqdirihi wa qismatihi ndax liñ xam ci jiital ndogalu yàlla ci ësal fala matmaa fi nay li maalam yaqdur alay kenn mënta def pexe ba jot ci loo xam ne yàlla dogalul ko ci yow kama la xawfa min fawti ma qudira xasuluhu comme ni nga xamee ni aarif yi warta ragal mucc war maanaam laa xawfa warta ragal min fawti ma qudira ilayhi ci perte loo xam ne yàlla dogal na ko ci moom fa ayu cheyin arrajaau baada hada fa ayu cheyin lu mënta doon nag arrajaau baada hada ya maanaam bu fekkente ne li yàlla dogal ci yow laa maxaalata mun mënta ñàkk dina am li yàlla jox kenn mënu la ko xañ kon lan ngay yaakaarati wa maa huwa illaa husnu zanni bihi kon yaakaar du dara du rafet njort ci yàlla bi xat it tam i minhu ci dagg ak bëggee fii nayli maa lam yaqdir ci jot loo xam ne yàlla dogal dogal ko ci yow wa xat itti itti ittihaa mihi fi fawti ma qadar dagg tuumaal yàlla ci loo xam ne maanaam dagg tuumaal yàlla ci Euh, ragal a ñàkk loo xam ne dagal dogal na ko ci yow falam yabqa illa taxliisul ubudiyatullah dara desu desewut ci jaam bi lu duut mu sellal jaamu gi ñeel ko ala ma yuridu bi xukmi shar'i ci ni ko yàlla bëggee ci atteeb shariatoom bi mufaaraqatil xusuus ci teqaliko bànneexu bakkan yi waqatil ixtiyaari maa bàyyi di tànnal boppam doyloo tànnifu yàlla wu mu bàyyi na sil iradaati maa iradaatihi te fexe ba méngale fexe ba méngale bëgg-bëggam yi ak bëgg-bëgg borom bi tabaraka wa taala wal yakun maahu kal mayiti bayna yadayhi na mel ni néew ci diggante ki nga bayna yaday raasib yi ki nga xam ne moom moo koy sang yuqallibuhu kayfa shaa mu di ko wëlbati ko mu ko soobee fala yara li nafsihi xawlan wala quwatan du gisal boppam benn pexe wala benn kattan wa yabqa mustasliman lil ahkam mu des rek di nangul yàlla lépp loo xam ne rek tajri alayhi min ghairi karamatin li shay'in min ha dogal na ko ci moom min ghairi karamatin ci lu amul benn karama li shay'in min ha fa in sabat euh, alayhi adrar yooyu la lor bu dalee ci kawam allati jarat alayhi al yi nga xam ne mbindeef yi ñoo ko wàccee ci kawam ma ta'allamat minhu shaara dara du ko ci métti li ma taxaqqa min qayumiyati mahbubi ndax yi mu dëggu dëggalee boppam ci xam ni loolu mu ngi jógee ci dëkkërloo bi nga xam ne kim bëgg mu yàlla dëkkërloon na koog moom wa hada min al ahwal allati hiya masdul mawahib al ilahi lii bokk na ci xaal yi nga xam ne bokk na ci xaal ak cosaan may ak yàlla laysa lil kasbi ilayha sabil kenn mënu ko fàggul sa bopp walan yastakmila man fi adna lahza min al iltifati li nafsihi walan yastakmilahu du ko matal man fi adna lahzatin ko xamne amna gende ko géndeeku gu gën a ndaw min altifaati nafsi ci gertu bi muy gessu bopam aw fi wallahu wala muy gertu lu yàlla ana lana allah zalika bi mahdi yàlla nañu yàlla defal lolu ci mahdi fadli bi ci ngëneel ak cosaanam amin bi jaaye sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa wal waajibu fi xaqi saalik li war nag ci xaqu aji soobu ji an yumsiya wa yusbiha wa yudilla wa yabiita wa laysa lahu muraadun illa cheyan mu xëy gontu gonnal fanaanoo maanaam bu mu fanaanoo lu duut ñaari bëgg-bëgg yi al awal bu ci njëkk wallahu azza wa jal mooy bëgg-bëgg mooy yàlla ixtiyaaran lahu fi jamil mawjudaat ta maanaam ixtiyaaran ngir tànn lahu ñeel ko moom yàlla fi jamil mawjudaat ci mboolem nekk tey wastiaanatan bihi anha muy dimbandikoo ci yàlla wa unfatan min lahazaat min lahaz wiha lamxatan wa xiiratan an yaxtaara si muy bañ ci benn génneeku di fiir nag di di tànn lu duwut yàlla walekun illahu huwa mabda'u muraadihi wa muntaha na yàlla nekk ndotteel ak nam namam ak daytalu nam namam wa awalu muraadihi wa axiri yi njëlbeen ak nam namam ak mujjëg nam namam wa maftax wa muftataxihi wa xatmihi yàlla ne yàlla doon ubbiteegu ubbiteeg nammeelam ak tëjëm wa mustaghriqan li qasfi muraadihi na lab ci yem rek ci na mën a mag yàlla euh, fii ma bayna zalika kulli ci li dox ci diggante googu yëpp xataa la tabqa lamxatan yuridu fiha gayru ba du toog benn géndeeku di bëgg leneen lu dul yàlla li anna iradatal gayri imma tamun aw atabun ndax bëgg leneen namm namm ak leneen lu duwut yàlla benn bëgg rek lay doon wala ak yeddaange wasaani ñaareel bi min muraadaati saalik ci bëgg-bëgg aju soow bi an yakuna kullahu lillah léppam na nekk di ñeel yàlla xaalisan min ruq yati xayrihi mu sell ci gis leneen lu duwut moom kaamila taalluq bihi mu mat ci aju ci yàlla taalluqan ci ak ak aju sirran wa ruuxan wa aqlan wa nafsan ak sirroom bi ruuxoom bi xelam bi bakkanam bi xolam bi jëmmam bi lépp mu aj ko ci yàlla hatta la takuna inda zarrat indahu zarratun muxtalifa anillah ba du nekk ci moom benn benn atome boo xam ne day wut wuuteeg yàlla waaqifan maa muraad yi mu taxaw ci Euh, nam nama bi yàlla bi azza wa jalla mun salixan an jamil iradaat summeeku ci mbooleem bëgg-bëgg yi wala ixtiyaaraat ak tànneef yi wa tabriraat ak layyi wal xuduuri ak cër ya wa shahawaati ak bànneexu bakkani wal agraad ak bëgg-bëgg yi waaqifan fi zalika lillah lépp nag mu taxaw ci ngir yàlla lillaahi ci yàlla maa laand ak yàlla laa shay'a minhu li nafsi dara du ci ñeel bakkanam wala bi nafsi wala mu koy def ngir bakkanam wala maahu wala mu ci ànd ak bakkanam wa yakun zalika ubudiyatan lillah lépp lu muy def na ko def ngir jaamoo ko yàlla min ajli ngir yàlla wa iradatan li wajhi ak nam jëmmi yàlla ji wa adaun li xaqi rububiyati ak joxe xaqat rububiyatu yàlla gi li yahuda alayhi minhu du ko def ngir dara dellu si moom wala yaxtar ala allahi azza wa jalla an yakmul lahu muradatu bu mu tànn loo yàlla ngir mu matal matalal ko càkkuteefam bal li taxlisi ubudiyatihi li rabbihi waaye daf koy def rek ngir sellal jaamoom ngir yàlla laa qunuutan min xeyr yi du ngir yaakaar yiw li allah yakfur ngir mu bañ a weddi wa yoxsinu zannahu bihi lima huwa alayhi min kamali sifatil mahmuda te li ko war mu rafetal njortam ci yàlla ndax yàlla lim làmboog matak melo yoo xam ne melo yuñ gërëm la intaha jeex na wa hada tanbih kama katabahu sayidna radiallahu qadiman xiina kaana yadrusu l ilma wa katabahu min xattihi wa billahi tawfiq bi la yeete nag nii laa ko indee man sayd ali Harazim comme ni ko seydna cheikh radiallahu anhu eh, binde jamono ji nga xam ne mi ngi doon eh, yadrusul ilm mi ngi jàng xam-xam toxalee naa ko ci mbindu loxoom قال نيا الله دبل لي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومثله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين